salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki diaspora bi di leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di jégalu ci guddee gi euh, fas yéene woon ñëw weccoog yéen xalaat ci benn gisin ci réew mi ñu bokk hmm. te li ko sabab di toujours actualité bi nga xam ne ñaare dañuy gis ne moo gën a fes ci xibaar yeeg wax jeeg coow li saasu ne benn bi ci njëkk di ñi nga xam ne ñoo tudde seen bopp ay rappeur di ay waykat bi ci top di ñi nga xam ne ñoo tudde seen bopp ay ah, communicateur traditionnel eh, nga xam ne loolu tur la bu leen tudde ci tubaab waaye ci aada ah, ak cosaan dañ leen daan tudde géwal ndaam sax géwal daana way géwal baaxoo nañu way waaye baaxoo nañu am ay buur yoo xam ne dañuy nekk ci seen pegg ya di leen kañaka di leen tagg ak di leen jay di leen jay loolu aada la ci réew mi muy aada ju for kon ñu bëggoon a def benn waxtaan ci ñaari xeetu jëm yooyu nga xam ne ci réew mi lañu bokk di ay pàcc yu bokk ci askan wi ñii di ay woykat ak fecckat ak taasukat waaye dañoo bokk ci beneen façon fecc ak woy bu ñu tuddee rap ñu tuddee ko hip hop hip hop nag xam naa sama mbokk kajoor kajoor beeg sama mbokk njàmbur njàmbur bi ak bawol bawol bi ak saalum saalum bi ñoom bu ma leen ne hip hop duñu xam luy hip hop sama maam yaak mbokk yee ca àll ba xamuñu luy hip hop loolu moo tax moo bëgg ci def waxtaan ba ñu xam lii lëmbe réew mi ci coow lan mooy sabab bi lan mooy cosaan li ak lan mooy njeexitalam ci askan wi ndax réew mi dafa bari lu fi lu fi bëmb dafa bari lu fi coow dafa bari lu fi jàmbat dafa bari lu fi wax ju baree bari joo xam ne boo ko xoolee lépp am kopp la wax la joo xam ne amul benn njariñ ci askan wi wala jëf ju amul benn njëriñ ci askan wi te bokk nag ci li ëpp nag dégg nga maama euh, yëngu-yëngu ci réew mi te boo ko nattee amul njëriñ benn jeexatee ci askan wi ci jamono yi nga xam ne moom la ñuy dund xëy na démb mënoon naa am njariñ ci nañu daan dunde waaye dund gi dafa coppi dafa soppiku coppite goo xam ne te am ay aadaaki cosaanaki yu bari yoo xam ne maam yi doon nañu ko dundee loolu law topp ba léegi ñu lank ne du ñu soppi ni ñuy dundee duñu soppi yenn doxalin ñu soppi yenn gisin yi bokk na ci li tax mënuñoo dem mooy dañoo bëgg lépp loo xam ne dañ koo doon ci maam yi ñu bëgg koo téye dund ci jamono boo xam ne du jamonoy maam loolu ñàkk dégg àdduna la te loolu dafa am njeexital gu rëy ci suñu ndóol gi suñu ñàkk gi suñu coow yeeg suñu lépp loo xam ne ñu ngi koy jàmbat ci suñu dund li ko sabab mi lu bari mi ngi jóge ci cosaan ak aada ji nga xam ne dañ koy doon donnante ci mag ak ndaw te duñu ko càmbar saa su ne xool ko ci wet gu ne wëlbati ko ko ak jamono ndax doomu aadama sax yàlla da koy bind mu ñëw gane si àdduna nekk lu ndaw du man dara nga jox ko ween mu nàmp ba yàgg muy diju nga di ko solal yore ba yàgg muy dox ba yàgg muy wax ba yàgg mu tax mu fer ba yàgg dégg nga maam muy lekkal boppam ba yàgg muy dem école ko ñëw ba yàgg mu takk jabar ba yàgg mu génn kër gi nit ci boppam yàlla da ko bind ci biir naturel muy soppiku yow ni nga xam ne yaay nit ki yow nga ne yow sa ni ngay dundee doo ko soppi na sa maam yaak maamaat daan dundee noonu nga fas yéene dundee doo ci ba dara loole mooy soixante-dix pour cent li lor Sénégal te du Sénégal donc dëkki Afrique yëpp lu tax ñoo dem mooy aada ju tar ju sax ju yàgg joo xam ne ci maamaati maami lañ ko jëlee mu nekkoon xëy na lool ba ko maam yee def jigéen na leen ci seen jamono waaye suñu jamono bii dafa laaj ay soppite yu baree baree bare bare laaj ay adaptation laaj ay méngale laaj ay dégg àdduna lu ci bari ñu fexe ba méngale ko suñu jamono ngir ñëmante dund ndax ñun bu ñu lànkee ne duñu soppiku ci ni ñuy dundee dañ koy def comme na ko maam yi daan defee bu ñu lànkee tamit jamono day soppiku ñun ñii bu ñu lànkee ne du ñu soppiku jamono moom xaaruñu de bu ñu soppikoo ànd ak moom baax na bu ñu soppikuwul ànd ak moom moom day dox doxam jamono moom faalewuñu jamono moom day dox ku ànd ak moom mu dox ku àndul ak moom mu bala fi dox moom jamono xaarul kenn lii ma leen di wax ne dégg ngeen ko dégg fenn ngeen ko du dégg du ngeen ko dégg ci benn télé wala benn tante wala benn gàmm wala benn meeting ma nga tamba di fen rek waaye lii may wax du ko fa de ma nga ña nga toog di fen rek joxe seen i chiffres rek di tali nañu fi ak xolli nañu feek ndox mi baax naag ma ngay seen nag jël si jënd seen i vue teg fenn rek tant boo fi dem fenn rek kenn du ci wax lu jëriñ askan wi tant gàmm yeeg màggal yeeg meeting yeeg politique yëpp feni neen duñ leen wax mukk lu leen jariñ waaye ñun ñu fas yéene ci suñu kàddu yu gàtt ci suñu xam-xam bu néew lépp lu ñu xam jàpp na njariñ la ñu fas yéene ko bokk ak yéen fexe ba taal xel yi daas xel yi nammal xel yi ba xel yi ñëw ba mel na paaka buy rendi xale suba suba xel yëpp ñaw fexe ba nit ñi gindu bopp xool ndax nit ñu dundee méngoo na ak jamono ji nga xam ne bokkul ak jamonoy maam yi ñu fexe ba bari na lu fi maam yi bàyyi woon mu jigoon leen te jiguñu ñun ñu jël loolu teg ko fee fexe ba wala ñu soppar ñu ko ba mu méngoo jamono ñu mën caa dund kon ñu tàmbali ci li nga xam ne mooy rappeurs yi nga xam ne ñoo tudd seen bopp rap rap nag benn façon way la woo xam ne ci xeetu way la jóge ak fecc waaye rab nag dafa jóge ci dëkk bu sori bu ñuy wax Amérique au dix-neuvième nga xam ne ñiñ jàppoon Afrique def leen ay jaam yóbbu Amérique ñu ñuul ñi nañu daan dundee foofu dund ga dafa metti metti goo xam ne jaam xam ngeen jaam rek jaam moom mooy làppato rek moom day am borom am ku ko moom am ku koy def defloo amulum xel amul dara lépp dañ ko koy defloo day am kilifa kilifa gi nag moo ko moom loolu mooy làppatu wala boog bokk na ci mandargay làppatu yi mooy nga am sa borom am ku la moom nit njaay nga mu am mu yor ay tànk ki loxo moom la amoo ci sa bopp benn sañ-sañ lépp moo koy def loolu mooy jaam yi ñëw woon am na Sénégal du fa jeex ba léegi nag loolee ba mu amee Amérique ñu di bayloo di lekk di leen liggéeyloo te kenn du leen fay def leen ay jaam ñuy dund dund gu méttee méttee méttee méttee métti métti dund googu métti gi mu metti tax na léegi leen ndeysaan bu dimanche nga xam ne ñu liggéey dañuy dem église comme ni nga demee àjjuma juma ñoom it dañuy daan dem église ndax dañ leen tuubal def leen ay catholique ndax tubaab yi leen jàpp jënd leen def leen ay jaam di leen liggéeyloo dañ leen tuubal aussi ci seen diine te mooy christianisme dañ leen daan yóbbu église ñuy dem église ñoom it nekk ay catholique waaye ci seen souffrance ci seen jafe-jafe ci seen metti metti bu ñu mësaan dem église dañuy ñaan di ñaan yàlla ci seen daraje yonent muy Jésus Christ mu taxaw leen wàcceel leen jafe-jafe yeeg coono yi ñi dund ci ñi nga xam ne ñoo leen moom di leen wulli di lekk seen ala di leen liggéeyloo di leen bayloo ay tool ñu di ko te ñoom amuñu dara moomuñu seen bopp ndax ay jaam lañu loolee lañ daan dem ci église ya. bët seeni bët di jooy boole kook ay way ndax ku ne nit ku ñuul na way ak fecc moom foo ko mënta yóbbu dana pàkkar ñu ko pàkkar ñu ko boobee fecc boobee nag lañ dugal te église ba ba ñu daan ñaan yàlla nag boole kook am tëgg ak woy wala boog ñu boole kook ay woy ci baat yu neex ñu tudde ko le négro spirituel négro spirituel mu dem ba yàgg am ñu ko tudde gospel wala boog le rhythm blues yooyu yëpp di ay façon xeetu musique yoo xam ne ñoo bokk ci maam ñu ngi jóge ci suñu maam Amérique africain yi ñu jaayoon jaam yóbbu leen Amérique ñu bay tool yaa raxas duus yaag bot lootu tubaab bi do di leen bayli tool comme ni ngay def Sénégal rek jàpp Afrique di ko bay tool rek def nga di ko defal loolu loolu lu yàgg ci Afrique la suñu maam yi ñu jàppoon jaam it noonu lañ doon def donte ñoom dañ leen ko doon forcé waaye yéen kenn forcé wu leen ko yéen yéen def seen bopp ay jaam yéen yéen kenn forcé wu leen yéen Sénégal yéen yéen làpp day dégg nga maam way woowee nag au dix-neuvième siècle aux États-Unis moo dem nag ba lii ci des yëpp génn ci lii ngeen tuddee rap nga xam ne moom it ñu ngi jóge ci xeetu way yooyu rek ay R&B le rhythm and blues ñu dem a dem ba yàgg jamono soppiku ñoom it ñu soppiku ànd ak jamono mooy li may wax rek ñun nag ñu soppiku waaye ñoom ñi nga xam ne sax ay nit ñu nekk Amérique nekk tubaab yi dañuy dañuy dañuy roy ci tubaab yi ñoom it di soppiku di méngoo jamono ba tax na jamono yi nga xam ne jamono yu bees la vers les années soixante dix quatre vingt nga gis nag ci biir musique yooyu nag beneen façon nga xeetu musique génnaat ci ñu tuddee ko rab le hip hop. hip hop boobu tamit ñu ko jël ci ñoom nekk ñoo xam ne tamit léegi am nañu indépendance moom nañ seen bopp mën nañoo dem ak dikk am nañu ay liberté yoo xam ne seen i mag xeex nañ ko muy Martin Luther King ñoom Malcolm X. yoo xam ne xeex nañu ay droit yoo xam ne ñoom nit ñu ñuul ñi amuñu ko woon muy ay àq ki yelleef yoo xam ne tubaab dañ leen ko xajoon ñu dem xeex bu ñu xeex ak tubaab yi ba ñu am ay droit yoo xam ne ay droit civil la ñu méngale leen ak ñëpp ñu bokk ñëpp yam nekkatuñu ay nit ñu suufe nekkatuñu ay jaam waaye ay nit ñu am ay ak ak yelleef lañ ñu bayal kenn sa tool wala di la juyal satala wala di la yanu say oto wala di la jox àddiya amatul Amérique c'est fini ñëpp yam yàlla ay nit dong la fi bin muy ay droit yu adopte adopté def ko ci loi américaine bi ñu nangul ñëpp léegi ñëpp a amul taalibe ki sëriñ fii nit yi rek la fi yàlla bind Malcolm X xeex na ci Martin Luther King xeex ci am nag ñu ñëw ci ginnaaw ñooñu ñooñu tamit inspiré leen gis nga histoire buy dox la de dix-huitième siècle ba dix-neuvième siècle vingtième vingt et unième siècle dox jamono bu nekk rek ak génération bi nga xam na moom moo koy doxal ak ñun koy doxalee waaye ñun nag ñun benn façon la ñu am te maam ya ba léegi soppikuwuñu moo tax duñu dem fenn ñu indi nag hip hop waaye ñi ko di indi tamit génne ko ci beneen fànn fent ko mu ñu tuddee ko hip hop muy le le milieu du rap nga xam ne beneen façon la boo xam ne dafa am leneen lu muy jëmmal lu jóge ca loolee ma leen doon wax muy ak njaam ñu gis na ñoom dañoo tardé ci wàll koom-koom dañoo tardé ci yu baree baree bari te sax. dañuy sëyante seen biir tubaab bi dañ leen a ber di leen donte am nañ ay àq ak yelleef waaye boo xawee am targement ci wàllu koom-koom da ngay dem ba ndeysaan doo mën a dëkk fi ñuy dëkk doo am alal da ngay ndóol ñu dankal ñu jël leen boole leen rek ci ay gox-goxaat yoo xam ne ñoom lañ fay ñoom ñoo fay dëkk ñoom ñuy dëkkandoo ci seen biir nag àndandoo ci seen biir di sëyante seen biir am seen i doom ci seen biir dëkk ci ghetto yi nekk ay pauvre boo demee Bronx boo demee donc Harlem boo demee Manhattan fépp foo dem ci États-Unis surtout ci sud bi ay North Carolina ay South Carolina ay Atlanta ay Saint-Louis Missouri euh, ba ba ngay dem di nga am euh, dans le sud des États-Unis euh, New Orleans foofu yëpp nga xam au 18e siècle ay endroit la yoo xam ne dañ daan bay bokkul ak nord américain bi nga xam ne dañuy dafa am industrie le nord est industriel le sud donc est agricole donc dañu soxla woon ay jaame ki ay baykat ay làppato alors ñu ñëw ba donc au vingt à la fin du vingtième siècle ñu am ay rappeurs yu ñëw léegi R&B bi di dox jur rap hip hop ñu di ci kebetu li olof tudde kebetu kebetu mooy jabatu nga am lu la metti dégg nga maam teg ko di kebetu bala la la la kebetu nag am na ci ñun am na ci suñu biir am na ci Afrique ñoom it ñuy kebetu lan la ñuy kebetu seen naqar la ñuy kebetu di tëgg ko waye ko lu dañu jaxase ko fexe daal ba mu neex a dégg waaye lañu ñu cay wax yëpp mooy di ñaxtu seen condition de vie ni ñuy dundee jafe-jafe yi ñuy dund ak pauvreté gi ak niñ leen beddee ak niñ ñàkk a bokkee ci koom-koomu Amérique beeg yooyu yëpp ak daal liggéey yu metti yi ñoo ko yore kër yu baaxul yu ñoo ko yore dégg nga maam daal seen condition de vie daal demewul noon ñu di ci ñaxtu nag ñaxtu googu nag ñu créer ay gang moo tax bu ngeen gisee yenn rapport yi di am violence ak it di leen sax toppandoo violence bi dafa jóge ci violence bu ay nit subir loolu lépp ci pauvreté la jóge ndóol pauvreté mooy li gën a garaaw ci àdduna pauvre moo tax ay rab ak ay hip hop yëfu pauvre la musique ku ñu pauvre la ñu ndóol ñu amul dara du du du du du loo xam ne dégg nga maam ci bànneex la jóge waaye ci souffrance ci pauvreté ci ndóol ci ñàkk ay ñu tumuranke ñoom ñoo inventé loolu moo tax yëfi ko tumuranke la hip hop il faut que tumuraanke ñu il faut ñoo xam ne da maam am amuñu dara dañoo ndóol bu ñu lekkee amuñu lu ñu lekk amuñu dara dañoo da ber ñoom ñoo sipp nag di di di wax seen naqar di ko di ko di ko kebetu dem ba ci biir ci seen biir ah ñu créé nag seen i gang ndax day am violence ndax violence moom euh, ak ñàkk ndóol di jur lu bëree bari bari moo tax lu waay di xeex war ngaa xeex fexe ba ak ndóol jóge ci aw askan ñak baxul l'islam sax bëggul ku ñak da ko téré ndax bo ñaké dootoo mëna jaamu yalla bo ñaké da ngay ñak sangor bo ñaké da ngay am violence bo ñaké man nga ray bo ñaké man nga sacc bo ñak motax ñak baxul pauvreté lolé nak mo jur ay gang ci bir milieu hip hop bi ci ño xam ñi ñi New York ñeneen ñi nekk en Californie ñi ci gëna fess ci seen jamono ya y a vingt ans vingt cinq ans mooy gang yi nga xam ne dañu demoon ba nekk un problème de société aux États-Unis tellement que dañu nekkoon di wujjee di kuje concurrence ku nekk di wan sa morom maa la dàq way maa la ëpp xaalis maa la ëpp fit maa la gën a mën a rey ñu dem bay tëkkonte di rayanté di dajante di dóorante di rayanté ku nekk mu nekk lu garaaw a garaaw ndax li tax loolu am mooy ñoom ci violence la ñu juddoo ci lañ màggee ci ndóol ci rayante ñu nekk di musique commencé mos xaalis commencé nag di takk ay bëñu or di dawal ay kadiyak yor seen yi ngan di kër xale yu baax yi dugg xale yu rafet yi ñuy ñuy blëw di sol ay yëre yu cher yor nañ léegi ay millions de parce que ñi ngi jaay ay disque bokkul ak ñi nekk Sénégal nga xam ne ñoom socc sax mënuñu ko jënd amuñu dix francs Mali unis dafa am industrie musicale ñoom ñuy xeex ba seen loolu taxaw ñuy def ay disque di ko jaay di ci récolter ay millions de dollars ci bëlew na yor seen i jet privé yor seen i château yor seen i jigéen yu baax di takk ay or di bëlew ñëpp di xam ne ñii ça respire comme Jay-Z ak Beyoncé ak ñeneen ak ñeneen Puff Daddy ñoom Tupac Shakur ñoom Biggie Small ñoom ñooñu ñëpp ñu dem na seen gang yooyu nag di dóorante seen biir concurrence loolee nag booba sénégalais yi ñoom ña toog Saalum ñi nekk Kajoor ñi nekk Jolof nag ñoom ñi télé yi ñuy taal nag ña ngay xool américain nag di duufali bët ñoom it ña ngay ña ngay toppandoo di ñoom it dañuy toppandoo ñoom gis nañu américain yi di toppandoo américain yi jóg ñoom u ut seen tuba yu rëy sol fexe ba am seen benn naayeg sol ko dëngal seen i casquette ut seen benn seenu përëm takk ñoom jël seen ñetti njalaxaanu anglais fuck you motherfucker ña ña ña ña ña ma ne ah wax réew mi moom doomi euh, sëwru doomi sëwru yeeg doomi Fatim Penda yi ñoom dañoo bëgg ñoom ay américain lañ léegi de réew mi nag Sénégal ngay ñàkk nag lii de kenn xamatul lu doon motherfucker, fuck you. What's up, man? How you doing, man? Brother, hey, this is the hood. We are the hood. Yeah, this is the neighborhood, man. Don't fuck me, man. Hey, man. Mana, ah, siya man yagay wal buti ko siya ba, meron na, hindi nga wax di ka de. Ay, wag yung delus rin, wag. Tiyan nga na waxi wax olaf yu xam ak ngeen bàyyi seen yi seen tubay yi nga xam ne fukki sàcc xaj gis lu ni la ilaha illallah man na ma leen di xool damay waalu ci yàlla gis lu ni lu ñew nga rey lu ñew nga rey ba ba ba ba dàq roy ba ba romb ñu ngay roy mané ne waa ay Sénégal lañu ay américain moo tax bi ma leen gisee bëkk dem ñu na saraax ci bi palé bi tok ak Macky Sall ba ah xam <laughs> ngeen da yeen xam ngeen du ngeen ay rapper de yeen du ngeen ay rapper wala du ngeen ay ay përëm ay përëm ngeen përëm <laughs> bo leen déggee ñuy wax da nga naan ñi lan lañuy lak xana xanaa rap nga rap ko ci fo la ci pël wala ci ñu mën ko dégg waye di lak angale yo xamne kenn ang al angale ngelaxaat xat yo xamne do xam li ñuy wax lu mu doon do xam li ñuy wax lu mu doon man ñi ñu bëgg tabax rew mi rew mi Cheikh Anta job doon wax Afrique gi ñu wara tabax Cheikh Anta job Afrique gi ñuy wax dellu nit ku ñuul ki ñuy wax ci cosaanoo egypte ñew dox ba ak fi Afrique gi Cheikh anta wax ak jeunesse bi Cheikh anta wax est-ce que moy jeunesse bi dedet dedet mané gaay jot nañu togaat nak teñcel suñu bop nak kenn xamul je ne suis pas contre l'Europe je ne suis je suis contre aucune musique gis nga jazz laay déglu nii j'aime la musique mais nit so amee engagement di xeex am conviction ci li muy xeex mën nga jël leneen lu nekk ci bitim réew mais boo ko indee ci sa réew da nga koy contextualiser da nga koy tropicaliser da ngay fexe ba mu ba méngale ko sa aada ak sa fi nga dëkk fexe ba rab bi soo ko jëlee Amérique boo ko indee Sénégal mu nekk rabu Sénégal rawatina yéen da ngeen wax leen. gaal seen xaw ma nu ngeen ko tudde gaal seen xaw ma lan gaal gaal seen hip hop xaw ma gaal seen rap mais gaal seen hip hop mooy rapu Sénégal da ngeen ko war a donc sénégaliser mais yéen da ngeen ko tuddee gaal seen rap xaw ma nu ngeen ko tuddee ba noppi nag yéen ni ngeen di solo da ngeen di toppandoo américain yi ni ngeen di waxee da ngeen di toppandoo américain yi ni ngeen di defee seen clip yi da ngeen di toppandoo amérique seen lépp américain la moo tax mën a yéen xana yéen yéen nag ambassade des bi nekk Dakar moo leen waroon di xawul leen jox xaalis ndax yéen États-Unis ngeen liggéeyal culture américaine bi ngeen di vulgariser yéen culture américaine the American way of life yéen loolu ngeen di promote the American way of life ngeen di promote yéen you should be support you should be support by the US embassy in Dakar what you are not working for us you are working for the American culture uh, you are working for our culture trabalha por lateral, un trabaja por lateral legales a veces. Esa escala me persona vuelve. Jadi tufu ne ngeen dugg fa dañu fëgg di takk ay ngandi chaîne yoo xam ne mën nga cee nga takk ci fas ji ci gerte pour lan pour dem fan pour def lan pourquoi jaay guerrier guerrier pour lan lan ba sonn Cheikh Anta wax na ba dee ñu bàyyi di aliéné suñu bopp yi nekk li ñu doon gëm li ñu doon di yëkkati li ñu doon waaye ku ci wax ba bàyyi man dama naan cey wàjji li daal lii daal kenn xamul ne cat daal moo gaaw dëgg dëgg dëgg kenn mës a gis lu mel nii nag man maa koy wax man dof bi maay saja wax lu ne ah, sama xalaat la mën naa am mujjum waaye man ko gis ngeen dem ne sarax dugg ci palais bi ñu dajale len ne ciogalu nak wuñu suba la màggalu Tuuba ngeen ne sarax ci palais bi lan ngeen def ci palais bi Macky Sall len wo ku len fa yobbu alen saw ministre bi mo len fa yobbu ak ku ñuy wax xawma lan tafax dajale len tak seen buum ngeen dem jebal len Macky Sall ko jiji sax as kii mu ne leen ñu tàkk leen ba ngeen kii daal leen yóbbu nag ne leen da ngeen dañ leen jébbali Macky Sall li ko waral mooy ba ma leen xoolee ñoom ñëpp ndeysaan xiif gi ñu xiif ci Macky Sall mi dañuy seen ak mi dafa amul industrie musicale bu taxaw bu gadu a bu mën a li ngeen benn amu ci kenn ci yéen kuy def musique koo xam ne musique am moo lay dundal li ngeen di jaay ci ay disque mënul leen cee jënd aw fas pour def pour ji ci ab tool y' a pas une industrie musicale y' pas une industrie culturelle au senegal bu war a mën a tax ngeen développé seen li di woote hip hop ak yooyu ba mën a ay disque jaay ko ba mën cee dund dund bi ngeen bëgg te yéen ñëpp luxe ngeen bi koo ci gis luxe la bëgg ku ci am tuuti rek dem jënd benn marque bu rëy Nike wala benn marque américaine ñëw taxaw jënd benn ngandi kaskat américain taxaw jënd ponkalu tuba yi américain kaskat ba mu dëngal dem jënd benn weñam seenu américain takk taxaw nag di fëgg dënn nag pour moom nag agsi na nag moo aag nag loolu xaalis koy def ñi koy def Amérique dañoo am dañoo jaay ay disque ba nekk am ay millions dollars yéen amu leen industrie musicale bu doy amu leen dara amu ci kenn ci yéen ku mas a jaay Sénégal disque ba am xaalis ku am xaalis ci disque da ngaa dem à l'international Youssou Ndour ci ñoom Baba Malick ñooñu dañoo mujj génn Sénégal ndax l'industrie musicale sénégalaise n'est pas rentable ndax sénégalais yi lekk ñu naanuñu ay làppato lañ amuñu lu ñu lekk ba jënd ay disque kon yéen li ngeen bëgg a dundee muy musique hip hop mënu leen cee dund kon te da ngeen a ndóol ñu ëpp ci yéen ci ghetto bi lañ jógee c'est des pauvres pauvreté bobu nak motax vous êtes vous êtes vulnérable manam ay nit ay nit ñu ay nit ñu néew doole ngeen ay nit ñu lott ngeen ay nit ñoo xamne ne mën ngeen dugg ci lu ne ndax bëgg a dund gu neex ta seen loxo gisul seen ginnaaw seen loxo gisul lu ginnaaw lu ko defee nak makassal da leen xifal ba ngeen xif nak bu leen soxla nak ci walu defaraat image am ci wàllu waajal troisième mandat bu mu bëgg a wax te ñemewu ko wax ci wàllu yu baree bare bare mu yónni kenn jox ko xaalis jox ko xaalis bu takk kooku ñëw buub leen ñëw yóbbu leen baab leen ba ngeen ñëw topp ci ginnaawam bu paree na joxuñu ma dara fekk xaalis bu weex tàll lañ ko jox pale boobu Macky Sall nekk kenn du fa dugg te doo fa génnaale xaalis moo tax nit ñi buuxante pour du fa dugg na ay rapport ngeen da ngeen am engagement engagement ci lan lan ngeen di toppandoo da ngeen gis rapport américain du dugg White House du dugg a génn da ngeen a gis benn rapport américain buy dugg White House dem di wax yu kenn xamul da ngeen ko gis ñoom top toppatoo wuñu White House parce que ñoom dañu am seen own White House parce que ñoom c'est des milliardaires dañu liggéey ci rab ba am lu ñu dundee soxla wuñu ay Biden soxla wuñu ay Obama soxla wuñu ay kenn yéen nag lekku leen naanu leen moo tax il faut ngeen dugg ci palais bi di génn pour am wecc ni mu valable ci yenn rapport yi noonu la valable ci musiciens yi ah, globalement tous les musiciens mënuñoo dund ci seen art nga jël les communicateurs traditionnels géwél yi mënuñoo dund ci seen aar nga jël euh, journalistes yi mënuñu dund ci seen aar parce que marché audiovisuel bu puissant bu am publicité bu day bu mën a permettre ñi fay woote ñëpp ci média journaliste ki chronique lépp ñu jaxase ko njëmbaan ba doo xam kii kii kii fee quoi ñoom ñëpp amul industrie de presse bu am doole buy fay publicité bu mën a gàddu li fa nekk ci ay médias ba ñu mën a objectif ci seen traitement de l'information ba mën a yee askan wi ci information yu baax bañ a compter ci état bañ a compter ci xaalisu état waaye di conté ci publicité bi nga xam ne ñu ngi ko def ci seen support yi ba ñu mën ca am payoor gu ñu mën a jël fay ko ñu ñuy liggéeyal ba ñu mën a moom seen bopp am indépendance amul du ci du ci presse bi du ci millier art bi du ci culture bi du ci musique bi du ci lenn. du ci griot yi du ci kenn benn source de revenu moo am Sénégal mooy état bi ak politique politicien bi ci la ñëpp dem di wut lu ñu dundee moo tax corruption bi day jafe day yomb moo tax réew mi du yomb a defar il faut que ñu créer des conditions de développement économique et social qui permettent aux Sénégalais ñu mën a dund sans que mu nekk xaalisu politique xaalisu palais xaalisu guerre loolu thématique bu rëy la boo xam ne ñoom ñii di rab ni waroon nañ ci mën a def ay single di ci génn di ci way di ci ci kebatu di ko wax ñu ànd ñoom mu nekk benn mu nekk benn mission boo xam dañ ko war a dox di ci génn ay CD ay cassette di ci yee xale yi ak jeunesse bi que ñun ñëpp dañu war a taxaw fexe ba développer réew mi li fi nekk ci pétrole li fi nekk ci gaz li fi nekk ci ci ci ci zircon li fi nekk ci or li fi nekk ci suuf li fi nekk ci ndox ñoom ya borom tuba yu yooyu toogoon ci pale bi ñu fexe ba xëy xaastal nit ñi ci njàng ci xam-xam ci bay ci consommer local ci industrialisation ñu def ci ay se mosuma cee dégg kenn ba wax loolu di lekk li ñuy bay ci réew mi di sol li ñor ci réew mi fexe ba xiital gone yi leen topp ci seen conseil ñu fexe ba xiital leen ci gëm réew mi gëm seen bopp waaye gone yi naka lañ leen di gëmee ñoom bu ñu taxawee ci seen kaw stage mi taxaw ci kaw pëj mi di way tubay bi ñu sol Amérique lay jógee casquette bi Amérique lay jógee ni ñu koy solee comme américain bi chaîne bu mag bi Amérique lépp affaire yi ndaw yi leen seetaan dream American dream bi lañ ñu leen Sénégalais dream bi jaay ñu ko xale yi de xale yi ku ci judd bëgg a nekk état bëgg a nekk ku ci judd bëgg passeport dem États-Unis parce que Amérique mooy rêve bi parce que ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci milieu hip hop bi loolu la ñu rêvé ñoom it loolu la ñuy jaay moo tax ma ne ñoom Macky Sall war leen a jox xaalis Sénégal ambassade des États-Unis bi nekk Dakar moo leen war di subventionné parce que ñoom la ñuy di aliéné xale di leen sopi lii moo am ci réew mi ni mu valable ci rapport yi bu ñuy wax doo xam li ñuy wax dugg ci palais yeeg génn seen engagement dafay des benn ñaar ñett nga ci mën a jël ñu engagé ñi ci des ñëpp amuñu engagement ndax bu midi jotee xamuñu fu ñuy añee yoruñu dix francs Mali am nañu tuuti publicité xaw nañoo siiw xale yi ñu ngi leen topp. il faut que ñu sagu dañuy bëgg am ngan di 4-4 sol ay Nike fii wala ay je sais pas man yor benn train de vie boo xam ne xaalis a koy def te yoruñu xaalis bi ñoom loolu nag moo lay yóbbu ci ngay trafiquer passeport wala ngay trafiquer ay voyage wala ngay dugg ci luuxur ñu lay jàpp moo ngeen leen gis ñu jàpp ne ki da doon trafiquer passeport ki da doon livre ñu def seen benn gang nag boo xam ne dañoo xamante màggandoo ñoom ñëpp bokk lépp nag di yëkkateendoo di tegoondoo bëgg am train de vie boo xam ne ay disque mayu leen ko CD mayu leen train de vie yi ñu yore oto yi yore boo ko xoolee xam ne ñii ci ay trafic la ñu nekk nekkuñu ci hip hop kese loolu tamit dañ ko war a wax ni ñuy Sall càcc gi ci ci réew mi xaalisu Covid bi ko lekkee tamit noonu la amee ci wala ci ñi ñi ñoo ko ci gouvernement bi ci ay tappat rek la man ak yow ak ñoom ak ñëpp kenn ku ci nekk da nga war a taxoon ne cocc fexe bay def loo xam ne day yokk askan wi waaye nekk ci sa bopp di xas gu Sall guddeeg bëccëg te yow bu ñu la càmbaree la ngay def moo yées li Macky Sall def wala ngeen tolloo kon yow ak Macky Sall yéen a yem atte moo xam foo mënti bokk ci ku ko jégee ci gouvernement bi ci yem kon dañoo war a waxanti dëgg àndandoo ci li nga xam ne mooy tax ñu doon ñu nekk ki ñu doon xam suñu bopp. gannaaw ba ñu xamee suñu bopp ñu tëgg tëggin woo xam ne dana ñu mën a jëmale suñu askan wi ci kanam gannaaw ba ñu xamee suñu bopp waaye bu xëyee di woy américain di sol américain di lekk américain di gént pour dem Amérique mais <coughs> réew mi du sotti. nga dem ci communicateur traditionnel yi <coughs> mais gis ngeen leen ñoom ñëpp nguur gu fi nekk ñu ànd yow. tagg la waxal la loo xam ne dara amu ci ngir lan am lu ñu dunde ndax li gën a dox ci réew mi gën a baax ci réew mi ñëpp fonk ko ku juddu ñu jàngal la ko mooy yelwaan li gën a bon ci lu yàlla bind moom la ñu gën a yëkkati fonk ko ci réew mi mooy tàllal sa loxo yelwaan yor ab pot dem yelwaani réew moo xam ne boo fa juddoo li ñu lay njëkk a jàngal mooy moomoo sa bopp ab sëriñ la moom benn ñaareel bi mooy boo waree lekk da nga yelwaani loolee buñ ko dugalee ci sa bopp boo màggee loolu doo ngay xam doo moom sa bopp te il faut nga yelwaan loolu lekk boo mënta yelwaan sambay mbayaan géwél yi ngeen di xas dañuy sàmbay mbayaan ci lañ judd réew mi yelwaane fi ak may ma réew moo xam ne may ma du fi gàcc ki la fi gën a dàq ndamu mooy ki taxaw ne damaa demoon seeti diw may na ma lii bala nga xam ne réew mi ñoo ñàkk jom nga gis ñu toog pencoo nag koo ci may ab million bu toogee ci penc ma la muy tiitaroo muy diw de dama ko seeti woon mu may ma sama mu may ma million ay sama garmi bi ak ah, a baax wallaay kenn du moom sama waa ji kenn du moom garmi la alu tax garmi la ba ma ko seetee million la ma may nga xam ne doomu raam ji moo ñàkk jëm réew moo xam ne dañuy ndamoo ñu di la may mim réew fu mu jëm diwa ma may lii du ne maa ko liggéey de du sama ñàkk ma ko liggéey de tubaab yi koo ci romboon tey may ko cent euros day taxaw ne la pourquoi nga may la moo tax nga dema ko may tax nga may jox tubaab boo romboon tey ne ko cent euro yi nii cent mille day taxaw ne la lu tax nga ma koy may nga ne kon non dama laaj daf maa neex ma ne la déedéet sa cent euro pourquoi da nga ko wax lu tax bala doo da ko wax lu tax di ko may cent euro yi cent mille soixante mille soixante cinq mille boo ko joxee tubaab da nga ko wax lu tax nga di ko jox doo ko jox mu def ko taxaw ne la lu tax nga di ma jox lii dan ko lay de boo nee dama laa yërëm mun la lu tax nga di ma yërëm teel sa xaalis. nga ne ko lu tax mun la déedéet man kenn du ma yara kenn du ma sarax kenn du jox man damay futteeku dem liggéey li ma amal sama bopp ba pare yow nga taxaw ne yaa ko ëpp dignité yaa gën tubaab tubaab bee la gën fuuf fuuf ndax moo la ëpp dignité du moom nangul ku ko may day futteeku dem liggéey am xaalisam bu ko amee nag lu ko neex la ciy def kenn du ko wax lu ci def yow nag yow da ngay lànk liggéey yow ñu lay may moo la gënal sax nga liggéey toog ñu di la jox ngay dund moo la gënal nga liggéey réew mu mel nii kañ la dem moo tax rapport yi tàmm ko. géwél yi tàmm ko sàmbay mbayaan tàmm ko ñëpp tàmm ku nekk di xaar ku la may ku nekk naan may ma yónnee ma jox ma jox ma réew moo xam ne ñëpp ay yelwaankat lañ fu réew mi jëm tant que changé wuñu façon yooyu nga xam ne suñu maam yi ñoo ko fi bàyyi woon ndax jamono bañ daan dund jamono yi buur la woon buur yi ñoo moomoon dëkk yi am ay réew yor réew mi organiser ko buur yi ak dag yi ak géwél yi ak tëgg yi ñoom ñëpp nekkoon ci gouvernement boo xam ne buur bee ko moo mën organiser ko noonu buur bi mooy buur bi mooy dafa ko dindi lépp dox kenn ku nekk am sa rôle ci société bi géwél bi am lu mu war a taxawee tëgg bi am nu mu war a taxawee euh, dégg nga maam lawbe bi am nu mu taxawee baykat bi ku ci nekk am sa métier métier boo xam ne dafa ànd ak xeet wi nga doon ak fi ñu la féetale ci société bi mu nekk une société bien hiérarchisée classifiée loolu amoon na ci suñu dëkk yi Afrique doon dox di dox di dox ba ñëw esclavage jiitu ko loolu lépp ñu dugg ci modernité léegi yu bari soppikuñ tubaab yi indi démocratie ñu wax ak si euh, ñëpp yem ñu royaume yi amatul buur amatu fi ñu créé république président moo fi nekk ñëpp ay voté ku nekk tànn ko kii jiite bi jiit bi dañ koy tànn démocratiquement kenn du yilif kenn ku dul ki ñu tànn ci mbooloo moo xam ne majorité la yooyu yëpp ñu ñu di ci dund suñu habitude yañu amoon nag ca suñu maamaati maam ya mooy sàmbay mbayaan géwél yi yelwaan say maam man caa am loo dundee ba léegi ñoom géwél yi ñoo ci réew mi gis nga Macky Sall bu ñu demee ci république ñu dem ba makisal Sall ay Ablaye Mbaye Peex Derkook ay Xaadim Samb waaw waxal président waxal waaw loo bëgg def defal loo bëgg a wax waxal lu président di wax Xaadim Samb président lu muy wax lan la président di wax moom la lay laaj Xaadim Samb loo koy wax lool loo ko bëgg wax loolu lan bu ñu demee ci etat république ñu ne bu fi kenn dëgg bool ndax kat déclaration bi ni muy def le 31 décembre c'est solennel ah c'est solennel lan moo tax mu solennel parce que Macky Sall moo war a wax Macky Sall moom lan moo solennel ci moom ay Ablaye Mbaye Pekh ko wër di ak ci Khadim Samb loolu mooy solennité état ay Khadim Samb ki Farba Ngom ki euh, Ablaye Mbaye Pekh nga xam ne maa ngi fàttaliku Mbaye Pekh mii ba may gën di nekk gone papaam bi ko jur daan ànd ak moom Mbaye Pekh mii ñëw sama kër baay Mbaye jóge Pekh Tall bu ñu mësaan a ñëw papaam amoon na fas wu rafet da ko daan takkal ay téere ay téere yu xonk ki fas wu rafet jekk goo xam ne su ko mësaan war ñëw sama kër bàyyi weekend su sama papa mësaan a ñëw suñu dëkk bu fa Ablaye Mbaye peex ñëwee ànd ak fas yi fas yu da daan fecc fas yu seen seen fas woowee fas yu dañ ko daan jat di ko wax jógal muy jóg toogal muy toog feccal muy fecc fas yu mel ni nit Ablaye Mbaye peex nii ma gis ko nekk bras droit Macky Sall état Ablaye Mbaye Pekh xam ci état Ablaye Mbaye Pekh dundu ci dund ci koppar yoo xam ne ñëpp a ko bokk ànd ak Macky Sall di wëgër wëgër yi taxawal naan yéen a ngi dem Tamba da ngeen fay def conseil des ministres tappale yoo xam ne cinq cent millions ki six cent milliards Tamba ñoo gën a ndóol ki Sénégal lan ngeen am yéen waa Tamba lan ngeen am dara feni neen moo tax ma ne ñoom xam nañ ko de du ñu jéem dara pour Sénégal soqaliku du ñu mas a def dara ba Sénégal soqaliku ndax lu ngeen gën a ndóol gën a pauvre ñu gën leen a mën a jekku gën leen a nax ngeen gën a topp ci seen ginnaaw di lambar lambari leen tàggaka di fen ngir mën a am lu ngeen mos rapport beeg communicateur traditionnel beeg ke dëkk tàmbaak yéen ñëpp ci yem réew mi li ko yàq li tax doxul mooy ndóol gi nit ñi ndóol pauvreté gi gi ngeen pauvre da ngeen a pauvre ci lu ngeen dunde waaye seen xel yi dañoo ràgg comme ni ko Cheikh Anta doon wax le son n'est pas bon Allô, est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que c'est bon? ok may wax na réew mi li tax munta dem mooy ñi ëpp ci réew mi dañoo ñàkk boole koog soxor boole koog iñaan boole koog jalousie boole koog lu ñëw fëkk leen lu ñëw fëkk leen waaw son bi day dem parce que léeg dañ may woo su ma kenn woowee rek son bi day dem léeg-léeg bu ngeen du son bi baaxul rek mooy dañ ma woo loolee nag ñoo war xam suñu bopp waaye ñi gën a ndóol ci réew mi ñi gën a ñàkk ñi gën a nekk ay faqir nekk ay ñu tumuranke juddoo ci tumuranke màggee ci tumuranke jóge ci àll bi ñëw dugg ndakaar yi ñoom ñoo ñoo ñëw ñëw yow seenu làmmiñ bëgg nag buuxante fexe ba lekk nag fexe ba dund nag amum taax am jeeg nag di lekk lu baax nag ci làmmiñ kese wax képp de wax làmmiñ kese ci lañ bëgg a dund ci seenu làmmiñ bëgg dund ci saw làmmiñ wax kese ci nga bëgg am am taax def ko muy R plus 4 am ci say 4-4 takk ci sa ñetti jeeg am ci sa toolub xaal làmmiñ rek la maam moo waxoon nee na tukki gi man fekkiwu ma yëguma sama yoon newu ci xawma lu xew damaa dégg ñuy wax rek ma da ci wax tukki tukki sëñ bi fekkiwu ma ko xawma nu mu demee waaye wax naa ci ba am sama R plus 4 am ci sama ñaari jeeg ak sama toolub xaal bu may bay ci tukki gi fecc wu ma yeguma damay wax rek fexe naa ba am ci loolu loolu mooy Sénégal Tamba di dëkk bi gën a ndóol ci Sénégal bokk nag Tamba amuñu dara mu leen nax jóg dem fa ay fétisseur mu Mariam Faye Sall yebal ko fa ne na nga dem sa Tamba boo fa demee na nga sangoo nii na nga suul nga fétiche yooyu moo ko fa yóbbu mu ñëw daal di koy mbubboo ay tournée économique ak nax leen di tappale yoo xam lam fay suul ak lam fay rey ak bàyyi ma yaag nag yu ñuul yaag yépp ngir lan. loolee ko xaadim saabu naan ko waxal loolu ñemeegu ko wax xaadim loolu ko yóbbu Tamba fétiche ko yóbbu Tamba moom lay waajal ñoo ko ne defal li defal bala ngaa wax defal li defal lee comme ça kenn du yëngu moo tax da nga ko ba ko ba ko ne waxal mën a jàkk di la xool waxul de <laughs> la mu la nga koy wax loo da koo ñemee ubbi gémmiñam di ko wax senegal gépp sañ nañu ubbi seen gémmiñ ba ci liir bi soo ko tey sañ naa ubbi gémmiñam ne troisième candidat la 2024 liir bi soo ko judd ba mu des moom nga xam ne jeexal na na yaa yor mi. 17 millions sénégalais yépp kenn ku ci nekk sañu jóg suba suba suba wala léegi ne man candidat la 2024 bam dess yow nga xamné yow tay nga xamné jéxal jeexal nga moomatoo fi dara dara moomatoo boo démé ba ab jay ko tuddi bi khadim samb mo la taxal président waxal nga xamné xamné da nga niou doole xamné na nañ la bis bo ubbee sa gëmiñ ba ne trois doo àggale xam nga bu baax na ñu ngi lay xaaree suñu ñettu kel xadim sa moom xam na moom mi lay wax loo da lay dugal de wallahi boo nee ba yati dal la xaadim saamu moom daw dem mbuur toog na sama yónni wu ci rey leen ko na dee su keneen faloo ma ñëw man ab géwal laa sama yónni wu ci ànduma kenn sama koll bi laa àndal ku falu ma dunguru la sama yónni wu ci na nga topp nag ay xadim sa ki mbay peex ñoom ñoo ko doon def Idrissa Seck ak ablay Wade de ba nga nekk ci naaju yow di wut nguur Xaadim Sàmm mii ak Mbay Peex mi <laughs> laaj leen Ablaye Wade déggatu leen ñu wax waxee Ablaye Wade ñu ngi la topp nag di danga dangari di la dugal ci loo xam ne bis boo fi ubbee sa gémmiñ ba ne trois da xam ne lépp dëgg la moom de mën na koo wax ndax Xaadim Sàmm moom du daa Ablaye Mbay Peex du daa mën nañ laa dugal ci lu ne nag waaye boo juumee ba topp leen <laughs> da nga xam ne Sénégal bari na kër yu am xaj de Sénégal gépp kenn ku ne suba mën ngaa xëy taxaw taal sa rajo dem ci Facebook bi ne candidat la 2024 ba mu des Macky Sall laa wax moom képp moo ko sañul dama koy défier na ko wax gannaaw suba 31 décembre day wax nee na day wax 31 décembre ci guddi nee na day wax na buy wax waaye waaye Macky nag bu fekkee Macky nag t'es un homme bu fekkee góor nga nag bu fekkee sa tubéy ji mën nga takk bu fekkee nag góor nga nag Macky waaye waaye Macky nee na man candidat la 2024 gannaaw suba wax ko waxal nga ne réew mi ngi sa loxo. nga ne li fi amoon du fi amati yaa ko wax li fi amoon du fi amati gerte nga dem indi Moussa Fall teg jënd say matériel yaa ko wax de di buccali kanam ak yu kenn xamul yaa ko wax waaye waaye Macky si tu homme là si tu homme après demain là il faut dire que toi là tu es candidat en 2024 si tu es homme on va voir si homme ou pas vas-y dof dof la ñoo a dof fuuf kon li tax xeex bi metti mooy nit ñi ëpp ci réew mi dañoo ndóol pauvre lañu pauvre ci xalaat pauvre ci xel pauvre ci dund pauvre ci xaalis pauvre ci lépp amuñu dara ba tax na koo ci dugal ci ruq am loo ko mosol mu war morom yi ku ci dugg ci pale bi bu génnee war morom ji ñàkk ndax lan bëgg a tekki mën a mën a bëgg a amoo dara amoo as ngor koo ci àndal di xeex da ngeen dem ba ci biir mu war la ci xeex bi ndax lan xaalis xaalis solu wanewu nii laa toll nii laa mel fëgg dund lépp xaalis a koy def koo ci gis muy xeex boo boo teeyee bañ a balaa yàgg nga gis ne ñu ne jënd nañ ko Macky Sall ne leen ko hee Jimbori surtout yow am la di Dis, je suis candidat en 2024. Si tu es homme là, dis-le. Maki, si tu es homme, dis ça. Tu vas voir, comme dit les Ivoiriens là. Eh, toi là, si tu es homme là, dis ça là, tu vas voir. Tu vas voir là, tu dis là que toi là, tu es candidat là. Dis-le. Dis, si tu es homme là, dis-le. Il le dira jamais. Là que l'un français ah, ivoirien. gént sax defu ko mi ngi koy xalaat da koy mi ngi koy ci xelam waaye du ko de la ma sama xarit bu mbàkke mbàkke ba ne woon <laughs> lépp looy xalaat cim xel day jub waaye ma nga yàqoo ci bu bu génnee xel mi rek yàqu waaye tànk mi ngi ci xel mi nga di ko yër mu muy tourné day rafet day neex da tëdd yaa jaaxaan naan na waaye bala nee na nag bala nga xam ne nag yàqu na nag génne ko bis boo ko tegee ci mbedd mi da nga xam ne lépp dëgg la kon Macky sa troisième mandat bay boo nga bàyyi ko ci xel mi de bu ko de saa soo xëyee ndek ndékki wala ngay añ di ko janeer ci sa biir xel mi fekkee am nga ci te yaa xam ñun duñ dugg ci sa bopp bi ñoo ngi taxaw ci biti yor suñu yatikel sa xalaatu troisième mandat bi na yam ki sa bopp boobu de bis boo ko génnee ki sa bopp bi ba teg ko ci penc bi da nga xam ne lépp dëgg la yatt yi lay dal sa bopp bi day toj ñu ngi lay xaar nag si tu es garçon là il faut dire que toi tu es candidat en 2024 si tu es garçon vas-y dis-le seen waa jooju plus de cinquante millions lañ ko jox le le le tafaala ki leen yóbboon ci pale bi xaalis bi wax tal lañ ko jox Doro Gueye ñoo ko lijjanti ak ñoom Eliman Lam ñoo jël xaalis bi wax tal yóbbu ko lijjanti audience bi jaarale ko ci Alioune Sow ñu yóbbu ci Macky Sall bu weex tàll lañ ko jox la le le tafaala loolu ñoom ñu di ku nekk di wax bu leen ñu fontoo ñun li ngeen def yëpp xam na ko ñoo ëpp ay réseau fuuf dama ne ci wax parce que man rapport yi man du ma leen déglu parce que xaw ma lu ñuy wax xaw ma lu ñuy kaas xaw ma fu ñu jëm. voilà ñoom ñëpp a donc dañuy dem ba yàgg nga gis la ñoom ñëpp ñuy viré di politique naan oui dañoo bëgg li dañoo bëgg falu tout ça parce que li ñuy ñot di train de vie yi ñu bëgg xaalis bi fleuve xam nga di solu yër ay kër yër ay gel yër ay 4-4 mais loolu te doo jaay benn disque mais lool da ngay mujj rek def li ñëpp def dugg ci politique bi comme ni ko Xaadim Samb defee ñoom mbay peex ñëpp benn source de revenu moo fi am mooy alalu askan wi moom dañuy sax saaxee nga dem seeti ki ko yore muy Macky Sall wala Abdoulaye Wade wala ku mënti doon ngeen leen tagg di leen woowee seen Samba Mbaye moo xam rappeur bi la moo xam ku mën doon moo tax gëwuma ci kenn man ay sénégalais yuy xeex laa gëm gëwuma ay rappeurs yi ki ay communicateur déedéet bu amee ñuy xeex ci rappeurs yi gëm naa man kuy xeex laa gëm nit dof dama ko gam nit dof dama parce que day xeex dama ko gëm parce que day xeex voilà mi ngi def show di def rapam def ay concert ba pare di xeex kooku dama ko gëm. jusqu'à preuve du contraire loolu laa xam ci moom nit ku nekk li ma xam ci yow laay am engagement bu fekkee tamit rapport nga tamit te Macky Sall nga àndal aussi nga ànd ak Macky Sall nga assumé ko kii xeex ànd ak Macky Sall nekk tamit respecté naa ko parce que au moins Macky Sall la àndal mais ki ma mënut a xam ne di di ñu jaay lii te yow xam nga voilà di ñu jaay Dakar te benqal nga yore ñor léegoo waaw ah, may togg ceebu jën nga ne ma am naa Dakar di ma jaay Dakar te ndekk fekk benqal nga yore kooku xam nga kooku kooku ça ne passe pas kon yooyu yëpp dañuy taf yëngal réew mi taf yëngal moo ko yàq nit ñi doxuñu ci xam-xam doxuñu ci conviction doxuñu ci xeex doxuñu ci constance koo ci àndal di wax ni mën naa xëy bés ba mu mel ne du moom xam na loolu dajale leen génn xaalis teg ci ko table ji ñëpp cëppeelu parce que xaalis la ñu parce que réew amul xaalis xaalis bi yëpp ñoom ñoo ko téye ak ah, moo ko kon bu len ken tardé ci ay rapport ki ay ripo ki ay ripaasa ki ay yu kenn xamul ñooñu ñepp xamuñu fuñu jëm xamuñu fuñu jëm gëmuñu dara ñooñu rab bi ñuy woote mënuñu ci dund ar bi ñuy woote mënuñu ci jënd lu aju lu ngoñ nga ñi rap Sénégal ñepp la la wax xeyna ñen ñi dañ ko def par plaisir dañ ko def parce que dañ ko bëgg dañ ko def parce que dañu dañu bëgg milliard rap mais mënuñu ci dund mënuñu ci dund mënuñu ci dund ñu fexe aussi ba sénégaliser ko jël di ci sol colinu Sénégal di ci wax waxu Sénégal di ko lakk ci lakk réew mi nit ñi mën a xam message yi nekk lu pointu lu puissant loo xam ne day dugg ci xel gone yi da def ay patriote def leen ay panafricain def leen ay génie def leen ñu bëgg réew mi def leen ñu taxaw pour tabax réew mi def ci ñoom xel ubbi leen mais loolu boo koy làkk ci anglais gi di sànni ñaari baaraam ak di wicce xoo ko sol tuuti bay yi mais loolu yow dimbali woo ñii ñii yàgg leen di def ñu bëgg ci Amérique yaa ngi def ci seen xel mi États-Unis bu ñu màggee ñoom ñëpp jël gaal gi wala visa trafiqué pour dem États-Unis ñoom ñëpp loolu la ñuy rêvé parce que loolu ngeen leen di jaay loolu du loo xam ne dafay jëmale réew mi kanam. moo tax ma leen wax ne xeex. du ñëpp ñoo mën a xeex am na ñoo xam ne ma riirandoo mu leen dugal ci xeex bi am na ñoo xam ne dañuy ut buzz am na ñoo xam ne ñoom dañuy euh, régler ay compte mais daf ci am ñoo xam ne ñoom dañuy xeex parce que gis nga xeex yombul surtout xeex Sénégal il faut nga am les moyens de ton combat il faut que nga dem ba dépasser ay problème de subsistance ay problème bu dund ki ay problème solo ki ay problème mu kat kat ki ay problème mu kër ki ay problème mu mois mois mois nii laa mel yooyu tant que mi ngi ci nit ki mënoo xeex. xeex dëgg dëgg dëgg da ngay fàtte sa bopp yamale say bëgg-bëgg yu bari nga dématérialiser ko lu baree baree baree bari ba nga non seulement da nga koy dématérialiser mais da nga koy démystifier matériel auto bling bling wayu jàppal bàyyi yooyu affaire complexe yooyu nga ne rappeur nga yow da nga am ay conviction yow dafa am looy xeex da nga am idéal ba pare yow fu ñu la fekk bëgg di sanse di wane ne yow yaa ngi bleu di wane yow tu respires l'argent tu respires la vie quoi yow tu vis quoi yow nekkoo ci bi yow un rappeur bourgeois quoi <laughs> yow après xam nga voilà quoi <laughs> looy xeex looy xeex tu aliéné te yëgoo ko yaa ngi jéem a dugal ci bopp nit ñi loo xam ne yow ki sa bopp yow mi ko jéem yow aliéné wu nga bu yàgg yow yaa nga ca mboy ga yow yow da yow da nga yow da nga aliéné wu yow sa brand dañ ko watch sa brand dañ ko watch bu yàgg yow bokkatoo yow yaa ngi out yow yow yow dugal nañu ci leneen loo xam ne yow du sa mbir yow yow moomatoo sa bopp yow nga ne yow nag yow yow yaay référence bi yow yow la ñu war a roy te yow yaa nga ca ga li ngay wax yëpp mënut a aj saakum ngooñ fuñ jëm. jëm moo tax il faut que ñu yeewu il faut que ñu jóg il faut que ñu taxaw il faut que ñu àndandoo il faut que ñu lire professeur Cheikh Anta Diop il faut que mu nekk suñu référentiel ci lépp. il faut lire Cheikh allez vous abreuver de la pensée de Cheikh allez voir la vie de Cheikh abreuvez-vous vous de de, la science de Cheikh pour vous ancrer vous pouvez faire du rap mieux du rap sénégalais vous pouvez faire plein de choses mais sénégalaisement de mais faites des efforts pour sur le comportement des jeunes génération. C'est pas bien. C'est pas bien. Ben xeex lañu am amuñu mil xeex Ben xeex lañu am c'est contre Macky Sall et son système ñun ñëpp ñoo ci war a mànkoo Waye ñi di xeex ñi di dugg ci palais bi ni di génn di lay naan oui defuñu fa lii lii lañ fa wax joxuñu lii lee lañu jox non patati patata lépp ñu bëgg ko lay non on n'a pas rentré au palais qu'est-ce qu'on fait au palais un rappel il fait quoi au palais au moment où on tue nos gens au moment où les jeunes sont morts au moment où on élimine des gens au moment où on mais contexte bi Sénégal nekk ngeen wax ay waxi Macky Sall mais vous vous rendez compte vous lan ngeen uti woon ci palais bi lan ngeen fa uti woon wax leen ñu ko yéen yéen a demandé dem ci palais bi wala Macky Sall moo demandé pour recevoir leen wax leen ñu xam nga wax leen ko lan ngeen uti woon ci palais bi laa bëgg a xam ngeen dem mu naan leen ay télé rap laa leen utale gi milliard laa leen jox pour budget gi yu kenn xamul mais c'est quoi un milliard ça se voit que vous êtes des enfants de lapato ay lapato ngeen parce que ay lapato ñoo leen jur un milliard c'est quoi c'est quoi un milliard de francs CFA vous vous rendez compte ay une maison de de de de la culture six cent millions ma yóbbu ko un milliard c'est quoi un milliard un milliard doyul nit dof 1 milliard nit dof un milliard c'est peu ci ambition yi nga xam ne man sama jëmmi bop man tay suma ma développer l'industrie musicale le hip hop suma ko bëggoon développer damay définir un cahier des charges place Macky Sall suma fa togon tay du muy du ngeen ñëw leen jox ay un milliard hein non Mais la culture lay instruire ne il me faut un cahier des charges sur l'industrie de la musique hip hop la musique urbaine ñu définirons ma ko mu am am philosophie am quintessence am esprit am aboutissement ma ñu tëggal ma ko tëggin boo xam ne dama day am impact ci ndaw ñi ci génération yi génération yi bi ma bëgg a tëgg suba sénégalais bi ma bëgg a tabax ci dëgër ci wow kong ci aada ak ci culture ci science ci xam-xam ak ci bëgg Sénégal ak industrialiser ko ak soqali Sénégal nekk patriote partout suma ci amee benn volet boo xam ne ci aar bi laa ko jaaree dama koy tëgg philosophiquement dama ci am un cahier des charges moom laay njëkk a tëgg teg Macky Sall sérieux wul toppatoo li ngeen di wax ils sont fous de ce que vous faites politis politicien la politique rek la xam taf yëngal amul ambition ci aar bi amul ambition ci religion bi amul ambition ci économie bi amul ambition ci nit ñi amul ambition ci diine ji amul ambition ci islam bi amul ambition ci dara ci boppam la nekk ak i njabootam sàcc alal ak njuuj njaaj mooy liggéeyam bu amul ambition. dana am neneen num mu taxawee mais yéen ñi fa dem sax amu leen ambition li ngeen xeex xamu lu mu doon vous ne pouvez pas aider des rappeurs amu leen ay vision la vision des rapports aujourd'hui le milieu bi ngeen nekk tey man nekkuma ci mais j'imagine je vous regarde de faire je vous écoute mais je vois que vous êtes dans la pauvreté extrême ce fait qu'un million milliards, bi potentialité au Sénégal Un potentiel si vous le pensez potentiel en termes de créativité mais en termes de création de de de de de son en termes donc de mobilisation des jeunes vers le patriotisme vers l'amour pour la patrie vers le respect des symboles de la République vers vers vers toutes ces tout ça Il tëgg ko mu carnet le carnet référentiel un cahier des charges nous définir quoi dégager quoi au niveau de la au niveau du ministère de la culture créer les services concernés à avons développé. développer organiser le milieu du hip hop Nous organiser en association en structure am organisation officielle. officielle ñu organiser ko interlocuteurs interlocuteur n'est qu'un ministère de la culture un vrai ministère de la culture mais pas un fils de Lapoto comme Alisson. Alisson, mais ce fils de Lapoto là il il peut rien mais c'est un c'est clone de Macky Sall ils sont pareils c'est des fils de Lapoto c'est des badolo Alisson, il n'a rien à la cervelle je suis désolé, il ne connaît pas l'art, il ne connaît pas la culture, il ne connaît rien à Ce C'est pas lui qui va vous définir un cahier des charges culturel dans le domaine du hip-hop. Non, Amounio a ambition. C'est quoi un milliard Un milliard, c'est quoi C'est rien. L'industrie musicale. Ce fait que a un potentiel, que vous êtes sûr qu'effectivement, effectivement, vous avez une industrie musicale, des studio. Euh, maison de la culture def ci ay euh, créer les vraies conditions d'une industrie musicale On n'a une volonté faire les assises de la culture les assises de la musique sénégalaise en général mais la mesure urbaine hip hop n'a que le sérieux présent. définir on n'a que une politique publique mais il day que priorité mais à condition que impacte impact sur la jeunesse un impact positif c'est comme ça que je travaille ni quoi de que que santé bi du ko def ci économie bi di ko def ci euh, lépp non la ko ci culture bi mais amuñu ambition c'est quoi le budget du ministère de la culture c'est dérisoire comment on peut avoir des ambitions dans le domaine culturel sans pour autant doter du ministère un budget potentiel et conséquent boo xam ne ko xool xam état bi ambition ci culture parce qu'il n'y a pas de développement sans la culture mais il n'y a pas la culture sans le développement parce que la culture du développement doit précéder le développement de la culture ou bien vice versa ça va te perdre mais de voir le budget de la culture il ak Macky Sall yéen ñu y ci palais bi ay ngeen ay ambition vision un milliard c'est quoi un milliard on voulait distribuer kenn ku na pas gi sa hier. non on n'a pas besoin de ça vous avez besoin aujourd'hui d'avoir des infrastructures culturelles vous avez besoin d'une fiscalité culturelle vous avez besoin de des subventions ci seen disque yi du ngeen ci fay benn taxe vous avez besoin aujourd'hui que ñu créer ay conditions ay bibliothèques créer ay histoire l'histoire du Sénégal ngeen est ci sukkandiku di bind pour di génn ay son muy dugg ci xale yi ngeen dem xooli Cheikh Anta Diop li mu bind li mu wax aduna bi yépp di ko chanté gisuma benn musicien boo xam ne mas naa génne benn CD ci Cheikh Anta Diop nation nègre et culture li Cheikh Anta bind yëpp ngeen waroon koo kër yéen rappeurs yi lu ki ngeen jël ko def ko ay son def ko ay musique xale yi di ci di ko déglu ci yéen mu leen jox envie ngi dem liiri Cheikh Anta Diop mais yéen Cheikh Anta ñoru leen maletu Macky Sall yi bi ngeen bëgg Macky Sall tamit toppatawul Sénégal li mu bëgg mooy malet bi téye ko tokki télé yi ñoom Kunkande damay xar géej gi maayo sama kurus gi ay maa la gën sëriñ bu koor gi ñëwee ku nekk fëgg sa sëriñ ku nekk sama sëriñ bi yii mooy sama àjjana ci yooyu rek ngeen nekk yéen ñëpp di naxante Macky Sall nag dàq leen a toog ci kaw di leen nax ku nekk di nax sa morom mais réew mi amul lenn lu sérieux lu si am dara lu sérieux amu si mais leen koy wax ku ko wax ñu saaga la ndey dafa réew dafa mën a xaste dafa ñuy tuddee làppato dafa léeg mais ay làppato rek fi am li ñuy def yëpp yëfi làppato la yëfi nit amu fi politique guddi ak bëccëg amuñu benn ambition lépp ay taf yëngal la toog fi nga toog Macky Sall di toog mel na ku yor legatu caafam te bu joxe defal ma lii yokk naa lii ubbi na mel na Sénégal moo ko moom mel na budget yi moo ko moom il n'est même pas sérieux comment on peut développer un pays boo xam ne on a déjà voté le budget bi voté nañ ko mu toog ci palais bi démb na day yóbbu budget bi ci six cent millions yóbbu ko ci un milliard te voté nañ budget ba noppi. kon le budget n'est pas sérieux Macky lan lay Macky mom nit la parce que ñëw ngeen fa rek il faut mu am lu mu créer télévision hip hop c'est pas l'état de créer une télévision de hip hop un état sérieux ne crée pas de télévision c'est pas le rôle d'un état de créer ay télé état ay licence lay joxe télé yi ñoom rappeurs yi ñoo wara a développer son rap mo wara dox ñu am xaalis ci li ñuy rap am ci alal ba wara a créer seen ay chaîne culturelle. mais c'est pas ay Macky Sall mo toog ci palais bi di bës ci ay bouton ba mu toogee ci palais bi ba léegi ku ñew mu ne damay bëss ci bouton amul benn bouton bu mu bëss bu réew bu tax réew mi soxaliku amul benn bouton bu muy bëss bu réew mi soxaliku réew mi dara doxut fukki at ak ñaar nga tok ci palais bi di fen rek guddeeg bëccëg mais mo yay di fen parce que du ngeen ay nit yeen ñi muy yéen ñi fekk ci palais bi tax muy fen parce que respecté wu leen jappé wu leen ay nit parce que ay ngeen bu ngeen ay nit makki du leen fen c'est normal union de ngeen am ay bibliothèques yu baax yi waw koŋ bibliothèques yoo xam ne lépp luy xam-xam ci àdduna bi boo fa duggee da nga ko fay fekk des bibliothèques physiques et virtuelles bien équipées tout ndaw ñi ngeen fay dem di gëstu ñeen ñi mu am ay rayon hip hop rayon musique traditionnelle rayon musique pop musique yépp tout ça ñu équipé ko nous def ay link au niveau donc des théâtres les centres culturels au niveau donc du département donc de la culture de l'art des universités Nous am ay centres de recherche am ay laboratoires d'analyse tout ça nous nga xamné Sénégal ku fi ñëw c'est un pays de culture parce que dañu am ay mam am ay des am goré am esclavage am potentiel culturel bu mag bo xamné lien développé mën nañ entre les États-Unis et les Black Americans et l'Afrique mu nekk benn passerelle entre New York et Dakar mu nekk une industrie culturelle boo xam on peut gagner en termes de tourisme des millions de touristes yoo xam à travers les États-Unis le monde mën nañ ñëw Sénégal ñu mën a booster suñu tourisme booster suñu milieu hôtelier fexe ba suñu hôtellerie dox ñu créer ay emplois mais def ay échanges dans le domaine universitaire yëkkati Cheikh Anta Diop mettre ko au cœur de la recherche parce que culture moy jaay am réew culture moy yooyu yëpp mais nak loolu kiko man moy président bu sérieux président bu am ambition am ministre de la culture bu sérieux ñu bëgg Sénégal ñoo mën ñooñu mais pas des lappato comme Macky Sall ki Aliou Aliou Aliou Mbodou xaw ma naka saw ñoo nga xam c'est des arrivistes ils sont c'est des gens qui c'est des gens yoo xam ils sont nés dans la dans ci mbedd yi la ñu juddoo ñoom dañuy tanku neen di ñëw ba tok ci ko bop état bi ay nitu mbedd lañu duñu dara ay sakaku nit lañ ay Macky Sall ak ay Aliou Sow vous vous rendez compte nit yo xamne yow di nga jël avion di wër le monde boobu ñoom amuñu dal yu sol ñu taxaw tey ci bop état bi di di def affaire yu mbele la Voilà. Dès qu'il y a ambition c'est comme ça que ça se passe l'industrie musicale burkina bi moo développé Sénégal Burkina Faso Mali ñoom ñu avancé culturellement te ñun dañu avance parce que Senghor dafa nekkoon onam de culture def def lu bari ci culture mais dañu parce que ñu fi Macky Sall amul ci ay ki yu kenn xamul ak ay Alexandra Macky ci on malheureux réew mi ay arrivistes ñoo nekk ci bopp bi ay Aliou Sawaki ay nu mu tudd sax ministre boobu bopp bu sew bu tuuti boobu nu mu tudd sax Abdoulaye Sow ay Macky ay Farba ay Abdoulaye Mbaye Peex Peex Taal dem naa dem naa fa ànd ak sama papa ba tàyyi Peex Taal xam naa leen bu baax da nga leen di xool ñuy pëyi pëyi ci état ku ciy wax da ngay mel ne nekkutoo nit gis nga tey Xaadim Samb ni mu doon waxee ak Macky Sall. mel na ku fitam dem mbay peex pareil di buuxante Macky Sall amul benn classe garde rapproché yi sax ñu ngi puus mbay peex di ko puus parce que solennité bi état amoon nga xam ne Abdou Diouf su ma saan taxaw da ngay xam ne chef d'état moo taxaw Senghor noonu kër kër waaye Abdoulaye Wade bu ñëwee la ñëpp lépp yàqu géwal yeeg kat yeeg lawbe yeeg léegi ñoo dër ñoom ñoo dar léegi président yi république amul loolu royaume moo am loolu ba Sénégal am ay buur booba géwul yeeg tëgg yeeg ñooñu ñoo leen di dara waaye loolu dafay jóge léegi république moo fi nekk république lu solennel la lu officiel la ay officiel rek ñoo war a nekk ci sa entourage say conseiller ñu officiel waaye léegi Macky Sall bu jógee ay Xaadim sambale lay àndale ki mbay peex ñooñ ñooy ay nawleem doomi xaram ji ñu naan kenn du fi tëgg boole ki sabar daañu tëgg lu rew boole ki sabar bu saw yàlla ginnaaw suba ndax république amul fi Macky yàq na lépp kon bu ma fi gis kenn ku jóg di wax naan ay hip hop rek dañuy défendre hip hop hip hop amu fi xiif hop moo fi am xiif hop mooy ku xiif espoir ku koo xam ne dafa xiif yaakaar di dund yaakaar xiif xiif hop moo fi am xiif hop képp moo fi am mais hip hop amu fi voilà ndax amul benn impact ci dund gi amul dara ci dund bi dugg ngeen ci pale bi génn yéen ñëpp mënut leen wax kenn luñ gëm il faut que mu leer. kon loolu laa amoon dinaa ko wax man participer ko ci li nga xam ne mooy ñaari xew-xew yooyu mooy Macky Sall ki ay géwëlam ki ay mbay peexam ki ay xaadim sàmba nga xam ne ñoom ñi ngi ko dar rek waxal président waxal président waxal président waxal mu xool leen leen yéen de yéenewu leen ma jàmm su ma leen toppee da ma dugal ci pax waaye waxuma de ma ne ko waaw d'accord ñu ngi lay xaar ñeneen ñi mooy rapport yi nga xam ne ñoom nax na leen ñu ànd ak Doro Gueye Elimane Lam ñoom ñoo ñëpp nga xam ne Macky Sall la ñuy liggéeyal guddi ak bëccëg dajale xaalis bu takku jox leen jox ko le le tafaa laax nga xam ne moom dóor marto mooy liggéeyam dóor marto tafaa boobu laxas leen ñoom ñëpp dem dugal leen jaay leen lekk seen njëkk ñu génn ñoom di pëyi pëyi yaakaar na Macky Sall dinañ jox un milliard ki ay maison de la culture urbaine ki ay rajo xawma la yi kan seen waxi dofam yooyu Macky yéen Macky Macky nax seen bàyyi yéen a ki topp yéen ñëpp lay nax ndax naxaate rek Macky lu mu la mas a wax waxul dëgg lu lu mas Macky Sall mas a wax du dëgg kooku ku koy gëm ak di toog ak moom naan Macky mi ma gis lii ak Macky dafa lawet ak Macky dafa lii waaw laaj leen seen bàyyi kuy Macky ana hip hop hip hop amu fi de xiif xob moo fi am xiif xob voilà wala xiif xob hip hop amu fi waaw man li ñuy hip hop li ñuy lakki li ñuy lakki yéen xiif xob a fi am xob bu ngeen di sàqami yëy moom ngeen bëgg xiif xob a fi am mais xiif xob amu fi xiif xob moo fi am ndax lekku leen naanu leen suuru leen amu leen dara da ngeen dem kay ay xob ngeen bëgg xiif xob a fi am di leen wax nag ngeen waajal bu baax manifestation suba bi société civile di ko woote ci li nga xam ne moo aju ci suñu milliards yi ñu sàcc yéen ñi demoon ci palais bi waa xiif xob ba ngeen demee lu ngeen wax ak Macky suñu milliards yi Covid seen mbokk yi xanaa am lu ñu man samay mbokk yi bari dee nañ ci Covid bi ñu sàcc alal yëpp lekk ko yéen ba bi yéen yéen loolu metti de suñu mbokk yi dee ci Covid bi ñu jël alal yëpp sàcc ko jox ko seen i gel 15 milliards fii 2 milliards 5 fee nappaajoo seen i jeeg ku nekk yéen loolu te yéen yéen a gën réew mi yéen lu ngeen uti woon ci palais bi xanaa dossier boobu ngeen demoon lijjanti déedéet François Mancabou bi ñu rey déedéet patriote yi xeex nekk ci kaso bi déedéet lijjantiwu leen yooyu yëpp yéen a nga jógee Bellacourt ñi jóge Saalum nekk ay ndondi 45 yoo xam ne xamuñu Ndakaaru mosuñu dugg ci palais bi dugg ci palais bi génn rek pour ñoom leneen la loolu ngeen uti woon dugg naa ci palais bi génn naa gis naa Macky Sall kenn ku ci nekk génn waa Kaolack ñoo ci ëpp ndax Doro Gueye Kaolack la dëkk moom moo leen manipuler Doro Gueye moo nekk ci ginnaaw di leen manipuler leen jox lépp nag Doro Gueye Doro Gueye Pape Doro Gueye ñi koy wax PDG Pape Doro Gueye trafiquant de drogue international blanchisseur de capital international jabaram di Clara ubbi ko ab salon nee na day jaay day létt yu kenn xamul manucure ki ak benn maison de production ñu ci bari mu lay dig naan naa la produire rek naa la boole kii naa la financé la xaalis bu ñuul trafic de drogue jaay drogue ak xaalis bu weex bu ñuul xaalis faux billet mooy liggéeyam di ko versé ci ay banques yu ñu tuddee Coris banque moo jabar ji vingt millions trente millions par jour loolu dañuy weexal xaalis amul benn salon bu ko yóbbu Sénégal c' du trafiquant il trafic du blanchiment de capital du Pape Dore Gueye loolu mooy liggéeyam ñoom moo nekk ci ginnaaw rappeurs yi parce que ñu ci bari Kaolack lañ dëkk mu di leen manipuler di leen jox xaalis nekk seen ginnaaw leen corrompre. moo leen yóbbu ci palais bi Pape Dore Gueye PDG loolu mooy liggéeyam ak jabaram Clara dañuy weexal xaalis di liggéeyal Macky Sall ak Mariam Faye Sall lii man maa leen ko wax na ko weddi Pape Dore Gueye du ko weddi xam na bu baax li muy def di liggéeyal Macky salla parce que Macky moo ko ngemb mi ngi def di weexal xaalis di jaay cocaïne di def lu ne ñoom ñoo ko ngemb ah booy Aly Ngouille Ndiaye la woon ñu wàcce Aly Ngouille Ndiaye mu dem tafu ci Mariam Faye Sall ak Macky Sall Pape Dore Gueye business ci la nekk. Macky ngemb ko mu di ko liggéeyal ci suuf di ko ko rendre Pape Dore Gueye laa ne moom mooy mafia bi gën a garaaw moo nekk ci ginnaaw dossier Adji Sarr bi moo nekk ci ginnaaw rapport yi demoon ci pali bi Pape Dore Gueye man maa leen ko man mooy doomeram bi yées ki Sénégal moo nekk lu salte li ñu def yëpp moom moo ko defal Macky Sall Pape Dore Gueye il faut ngeen xàmmee ko yéen ñëpp dinaa posté photo ngeen xam ko Pape Dore gey mooy parrain wu euh, Wally Seck xam nga Wally Tamba concert bi yooyu yëpp Pape Dore Gueye moo nekk ci ginnaaw muy liggéeyal Macky Sall lépp luy folklore lépp luy nax jeunesse bi lépp luy fexe ba laxas leen pour pour Macky Sall am ndam Pape Dore Gueye moo nekk ci ginnaaw mooy parrain wu Wally Seck Wally Seck lépp lu mu nekk Pape Dore Gueye moo nekk ci ginnaaw ñoom ñaar ñoo ànd def seen ay fo billets di dagale ay millions ki ay milliards en faux billets moo tax ñu jàpp ci coon sekk ba ko cee tëj coon sekk papay Waly Seck deful dara musta am machine bu defar faux billet Waly Seck moo amoon machine bi di liggéey ak Pape Doré Gueye ñuy blanchir ay milliards Youssou Ndour yëg ko mer bi mu meree dem boole leen parce que dafa amoon jalousie ci Thione Seck bi mu toogee moom Macky Sall ñu def seen ay enquête pour daaneel Thione Seck mais Wally Seck moo nekkoon ci ginnaaw bi ñu ñëwee gi pour jàpp jàpp machine bi pour jàpp Wally Seck Thione Seck bëggul carrière doomam yàqu mu opposé wu taxaw ne du Wally man la ñu jàpp ko dugal ci kaso bi mais Thione deful tunul ma nga ca barsàq Wally Seck bii ngeen gis ak Doro Gueye ñoo seq ak mafia bi booba Aly Ngouille moo nekk intérieur ànd ak Wally Seck mi ak Doro Gueye ñu liggéey ay miliare de blanchir capital comme ni ko kii nga xam ne mooy Bougazelli defee comme ni ko ñeneen ak ñeneen di defee ci réew mi weexal xaalis Macky Sall xam ne lépp léegi nag wàcce nañu Aly Ngouille Ndiaye gey dem na di ko continuer di ko def a Marième Faye Sall ak ki nga xam ne mooy Macky Sall Wally Seck nekk seen waykat booyi topp ko mu ñu leen di aliéné di leen nax ngeen di jagar-jagar naan seen carte d'identité jox leen ko dañuy concert Tamba ak yëpp Wally Seck ci mafia bi la bokk ak bi Wally Seck ak Pape Doré Gueye man maa leen wax loolu li ma leen wax ñu bari de mais Pape Doré Gueye kenn du ko tudd man dooga maa koy tudd mooy PDG bi ñuy tudd PDG bi du président directeur général de PDG bi P bi mooy Pap D bi di Doore G bi di Guèye Pap Doore Guèye Ah! laaj leen ko lu muy liggéey yéen a ngi koy dégg fu ne ku nekk di ko tagg Doore Guèye ma defal li, Doore Guèye laaj leen ko lu muy liggéey ak laaj leen ko fan la jëlee xaalis bu ngeen ko gisatee wala ngeen interpellé ko yéen ñu nekk ci réseau yëpp génn leen ne Pap Doore Guèye wax ñu yow xaalis bi ngay distribuer foo ko jëlee ak luy sa liggéey laaj leen ko ko trafic de cocaïne ak blanchiment de faux billets Macky Sall ngemb ko ak Marième Faye moy mooy dugg ci musiciens yi ñom ñëpp kenn ku ci nekk amna lu mu la dig naa la produire na la defal son na la lii kenn ku nekk mu dig la ñi mu yoneen xaliss ñi mu may leen xaalis ñoom ñëpp moo leen di corrompre Pape Dore gay mo nekk ci ginaaw li ngeen gis ba créé ba ñu dugg ci palais bi lepp Pape Dore gay ko teug yakal ko Alioune saw moma ak eliman Lam ñoo ci and

ci la jógee santeem daanu mu dugg kaso ci la jógee ba dee ni lépp de faux billets Wally Seck fan la oto yi mu gën a yooyu fan la ko jëlee Wally Seck dem na jënd Waterfront ndaw si dañ ko jox 15 milliards ci Covid bi Abdoulaye Diouf Sarr jox ko ko mu dem jënd appartement 600 millions à Waterfront fii Yérim Sow tabax ci watu euh, Radisson Blu Wally Seck waxoon naa leen jënd na fa appartement bu 600 millions Wally soirée yooyu ngeen gis ñuy barote ku nekk ñëw di défilé di joxe xaalis xaalis yooyu yëpp c'est pour blanchir de l'argent c'est des faux billets yu ñuy génne di ko jox pour mën ko dugal ci circuit bi dugal ko ci banque ak Dora Gueye comme ñoom ñaar Mburok Sow benn lañu Waly Seck ak Dora Gueye ñoo bokk mafia Waly sek bi ngeen gis muy way ni dangereux Doro Gueye boobu nag moo jël booy rapport yi Kaolack yi boole leen booy Kaolack yëpp parce que moom tamit il est de Kaolack Doro Gueye waa Kaolack la moo tax ñi dugg ci palais bi boo xoolee ñi ci ëpp ak ñi muy récupéré ñëpp waa Kaolack lañu waaw kilifa bu Y'en a kilifa bi nekkoon ci kaso bi kilifa te seqoon ak Thierno Diallo kilifa ak Thierno Diallo ay ay copains lañu depuis enfance ñoom ñaan ñëpp waa Kaolack lañu gis ngeen vidéo yi pas trafic passeport yi tout ça. ñu jàpp kilifa def ci kaso bi ñu dem quelque temps ñu jàpp Thierno mi ko piégé woon vidéo yi def ci kaso bi ñu ne dafa dem euh, yoroon benn appartement Eliman Lam xaw ma lu mu def lu mu fa jël Eliman Lam dugal ko ci kaso bi gis nga turu Eliman Lam ñëwaat na foofu kilifa boobu bu yéen ak Thierno Diallo boobu ay copains lañu ñu ngi dëkk Kaolack ñoo bokk même quartier ñooy fréquentante ñoom ñëpp ay Saalum Saalum lañu Doore Gueye Saalum Saalum la laajal kilifa kan moo ko génne ci kaso bi Thierno Diallo laaj leen kan moo leen génne que ñoom i nan dañuy xeex Macky Sall ci kaw ci suuf ñu seq ak Doro Gueye di teg seen mafia affaire Saloum la ñuy jaay nit ñi te ñun ay kajoor kajoor lañu ak ay euh, njàmbur njàmbur kenn mënuñoo nax lu ngeen tëgg ci suuf yéeg ci kaw di wax leneen xam nañ ko on sait tout Doro Gueye moo récupéré booyee Kaolack yooyu yëpp ñu jaay affaire yu gàngu Saloum di def lu leen neex di nax nit ñi ça ne passera Dora Gueye Pape Dora Gueye moo nekk ci ginnaaw booy rappeurs yi di wax ñëpp di wax kilifa ci boppam copain wu Dora Gueye la clean to kilifa du jëkki door moog Dora dañuy wax bu baax a baax seq ay business yu bari kilifa bu yena maar laa la wax man maa leen wax li kilifa Dora Gueye daf daf daf ñu infiltrer am ñu mu dugg ci seen biir ñu nekkoon ci xeex bi mu récupérer leen di teg ak ñoom dil ci suuf di yóbbu ci Macky Sall yeewu leen de bu leen kenn nax kenn dootu leen nax. waa li sekk ay millions oto 200 millions que 600 millions mais trafic trafic de faux biens, de cocaïne de drogue de mercure de tout Qui trafic la ñu amee musique amul xaalis man maa leen ko wax industrie musicale Sénégal amu ci kenn ku ci mëna am luxe bi nga am du Wally Seck du Youssou Ndour Youssou Ndour bi nga xam moy mooy bàyyi Seck ci way mënu ci am luxe bi Wally Seck am Thione Seck bi bàyyi Wally Seck amu ci lolu Youssou Ndour bu ci amé lim ci am parce que dafa dugg ci business def ay industrie am ay télévision dem jaay ay disque à l'international te ba léegi mi ngi dang-dangi Wally Seck juddu barki démb yor ay milliards di yor ay oto yu cent millions deux cent ay appartement six cent millions fu mu ko jëlee ngeen ne Wally Seck moo dàq jaay disque Youssou Ndour Wally Seck moo dàq papam Wally Seck moo ko gën a yàgg ci woy bi Wally Seck dafa fett ki neen parce que dafay trafiquer ay faux billets parce que ñoom dañoo seen industrie de de kenn du leen jàpp kenn du leen dugal ci kaso yi procureur yeeg juge yi di ci lekk kenn ku nekk sa wàll di ñëw loolu moo nekk ci réew mi réewum trafic la réewum drogue la réewum sexe la c'est une république de rock and roll y a pas de ay solennité bu ñu fi tëgg kasalol dañuy tëgg kasalol ba mu fokk y a pas de république ici c'est une république de rock and roll une république de agissar de sexe de drogue et de l'argent sale et de agissar une république de pàccu agissar Sarr moo fi nekk ngeen ñuy fonto c'est ça la vérité man maa leen koy wax ngeen xam ko bu leen waa Kaolack nag nax de gàngu Kaolack boobu bu ñu leen ndax tuur leen dem de yeewu leen bu baax a Saalum Saalum la ngeen di jaay ab Kajoor Kajoor ab Saalum Saalum du ko nax ab njàmbur njàmbur Saalum Saalum du ko nax c'est un gang de Saalum la ñooy Doro Gaye moo nekk seen ginnaaw bëgg a nax nit ñi pour Macky Sall toogaat si lànk leen te ngeen ubbi seen bëti lu leer laa leen wax nag te am naa ci yenn élément ak ay preuve yoo xam ne dinaa ko indi da ngeen fi mës a gis kenn ku woy ba am ay milliards Thione Seck dàq way ñëpp Omar Pène wan na ba xubidaas Ismaël Lo way nañu ba xubidaas waaye yéen ñooñu ñoo am train di di Wally Seck am mais ubbi leen seen bët yi ngeen yeewu ngeen xool train de vie bi Wally Seck di am ban waykat moo ko am ci réew mi kenn xam ngeen lu tax mu am ko Dora Gueye Pape Dora Gueye kese ak ñoom Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur Macky Sall parce que ci loolu la ñuy dox. xaalis bi circulé seen immeuble yeeg yëpp faux billet la Bougazelli ngeen ci xam moo ci feeñ mais du gazeli Moustapha Cissé la wax na ko fi ñu tëj ñam ay trafiquant de faux billets Macky Sall mooy chef de gang bi Macky Sall ci boppam mooy chef de gangu trafic faux billets Macky Sall ci boppam kooku Interpol dañ ko xam nañ ko Tracfin xam nañ ko GIABA xam nañ ko ñoom ñëpp xam nañ ko Banque centrale bu Sénégal xam nañ ko mais dañ ko teg seen tànk masse monétaire bi circulé Sénégal kooku dafay une inflation parce que c'est pas une monnaie c'est pas une masse monétaire officielle c'est des vrais faux billets ñu ngi def lu leen neex moo tax bëgguñoo bàyyi nguur gi Wally Seck leen jommal yor ay oto bling bling yor ay kër yor ay bien ay milliards ci gone gu fettegul ci nen lu ko ko may faux billet faux billet yooyu moo rey bàyyam ndax moom dañ doon jàpp si Youssou Ndour complot ak Macky Sall pour dal ci kaw seen parce que coono yu la yàlla xam ne dañ lay rey ba noppi ñëw yàlla la bët seen i bët di jooy coon ki mu gënoon a du sax Youssou Ndour du sax Youssou ki mu gënoon a ciblé du sax du sax euh, coon Wally Seck la bëggoon jàpp ko moom Youssou Ndour Wally Seck la bëggoon damm ay tànkam boobu moog maki comme ci rek sow ñu dugg ci kër gi sàpp ñu def ay enquête ñëw dugg machine bi defal faux billets yëpp a ngi ci kër gi coon tëb na maa ko moom ndax protéger Wally sacrifier boppam bañ carrière doomam yàqu <laughs> Wally fu mu jëlee xaalis xaalis bi nga fan la ko jëlee jaay ay CD moo ko may disque ban sénégalais mooy jënd CD yéen sénégalais yéen a dàq trafiqué yéen CD bu jënd ngeen trafiqué ko kenn koy ko copier ko jox ko ñëpp du ngeen jënd benn CD kenn jëndul amu leen lu ngeen lekk fa waale fu ñu jëlee xaalis bi na leen wax. man nag du ma nekk kajoor kajoor njaamu njaamu ab saalum saalum di ma nax de man benn doole googu du ma nax saalum saalum duñ man man kenn du ci nax lu ñu yëkkati xam naa ko man saalum saalum du ma nax voilà. lu bi LGBT bi loolu leneen loolu dinaa ci ñëwaat affaire góor jigéen bi loolu dinaa ci Doro Gueye ki Wally Seck ki ñoom ñoom ñëpp dinaa ci ñëw loolu beneen élément yoo xam ne maa ngi ko dajale ci seen lu bi góor jigéen bi dinaa ci ñëw dañu a di infiltrer nit di wax fii di dugg fee di génn fee di manipuler xeex yeewu leen biling biling mba mbéy mbéy yi bu bu mu leen tax yeewu leen tey observé tey xool tey déglu ñi xam ñu leen di wax ñu bañ leen a nax voilà naa ci dikkaat gën a yaatal wax leen kan mooy Doro Gueye lan lay def réellement lan la seq ak Wally Seck ci wàllu phobie yi ci wàllu góor jigéen ci wàllu yu baree bare bare yëpp dina leer seen bopp parce que réew mii ngeen di wax ne mag ñu baax ñi suñu mag ñu baax ñi mag ñi bu ñu baaxee réew mi baaxut mag ñi ngeen di wax bu ñu baaxee a fi des fii dara baaxu fi ay góor jigéen a fi nekk ki ay ñuy raxasi biye ay ñuy nappaage seen i jéeg ñuy séddu àlal réew mi a fi nekk ay tappalekat a fi nekk ku baax amatu fi mbaax bu fi masee amit dem na yoonam lu bon rek fi des laaj leen Wally Seck bu ngeen ko gisatee ne leen ko Wally très lii nga xaalis bi nga yor foo ko jëlee laaj leen Wally fu mu jëlee alal ji <laughs> ak yu muy jaayee ko xaw ma seede yow man xaw ma lu muy jaay laaj tabax ak bien yi muy jënd oto yeeg yooyu ëpp na milliard laaj leen ko Wally fu mu ko jëlee bàyyam da amu ko Ismaïla Lo amu ko Omar Pène amu ko ñu waykat yu bari ali Mbaye nere ko ñëpp ñoo ko njëkk ci way amuñu ko Pape Diouf mi way sam amul loolu laaj leen Wally fu mu jëlee xaalis parce que dafa ñemee def lu ay moromam ñi mu wut def rek képp ñu ngemb ko wala gay ko ngemb kon maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay da xam ne guddi na mais daañu ci dikkaat allah yeewu leen ngeen ubbi seen i nopp ak seen i gët di déglu ñu leen di wax lu ngeen xamut waaw ah, ndax ñoom dañ leen nax de dañ leen di teg dil affaire saalum saalum la ñuy jaay te Doro Gueye moo nekk ci bopp bi di manipuler ñëpp. pour nax Sénégalais pour Macky Sall toog Macky lay liggéey bés bu nekk ni ñu koy wane Doro Gaye bés bu nekk Macky Sall lay liggéey moom ci service su Macky Sall la nekk parce que Macky moo ko ngemb jubadi gi Doro Gaye jubadi ju dafa jubadi jubadi ba amul carte d'identité sénégalaise sénégalais la de Doro sénégalais la mas nañ ko fi jàpp Mauritanie la nekkoon Mauritanie fa la la lam fa def dinaa ko wax ba ñu tëj ko fa ba ñu indi ko senegal mu ñëw Doro Gaye PDG Doro Gaye amul carte d'identité sénégalaise sénégalais la mais pour bañ a laisser ay tracé lépp lu muy def ci ay nit la koy def du def dara ki turam xanaa passeport diplomatique bi mu yore rek moo nekk turam te passeport bi am na ko am carte d'identité parce que Macky Sall ñooy dem fa ñu defaree passeport ñu utal ko passeport parce que trafic yi def moo tax du bàyyi trace fenn xaalis bi si jabaram la koy jaarale wala ay xaritam wala ay nit ñoo koy endossé du def dara ki turam lépp da koy daw noonu lay utiliser Wally Seck ci lu bëree bëri naa kan te dug dugg ci kaso yi di génn ay nit di duggale ko génne di dugg di wax ak juge procureur yëpp di yóbbu xaalis otoom saa yoo ko ubbee da nga fa fekk minimum deux cent millions xobet xobet madame Faye Sall lay jékki-jékki woo ko nekk dama seet li mu du ma ko wala indil ma li kërëb kërëb affaire local ba li mu ci def yëpp moom Doro Gueye li def ci biir local Afrique ni mu doon manipuler ñoom Ba ni mu doon eh, xuloo yaayi Ba ci affaire yu naka lay def ba récupérer doomam ko ñu yóbbu faj faj faj faj mënut a wér ñu delloo ko Sénégal ko ci avion yóbbu ko Guinée fa lañ ko yóbbu Guinée Bissau ñu di seen fétiche yi ba mu dellu waat ba tàmbaliwaat am na 3 4 mois yoo xam ne dégg leen Doro Gueye naa leen wax kan mooy Doro Gueye ak lan mooy liggéeyam dëgg-dëgg parce que yéen a ngi dégg turam fu xamu leen kuy Doro Gueye man maa leen wax kuy Doro Gueye ak lan la seq ak Wally Seck ak Macky Sall ak Aly Ngouille avant ak tey jii Marième Faye Sall ki bi nekk ci réew mi yëpp te Doro ne dëgg wàcc luye hélicoptère de Paris à Nice wàcc tubaab yi dar ko ñu koy filmer mu naan xaw ma yu kenn xamul yu tappale yàq xaalis réew mi sàcc di trafic yoo xam ne yëpp dinaa ko indi tegal leen xam kan mooy Doro il faut que ngeen li xew dafa jot ngeen xam li on fait comme ça kon di len ñaanal di effectivement kan ban jibril waar man kooku xawma sax ay jibril waar kooku je le connais pas koku du koku kooku du kooku du ma naw leen kooku ñooñu xawma leen je les connais pas je parle pas de ces gens là c'est des petits types man amna na ñoo xam ne nawloo duma wax ak ñom duma wax seen wax faut pas me parler de ces énergumènes là voilà fanaan jàmm salam alaykum. Akhenaton